gis ngeen dimanche dama ne Khalifa Sall danga on s'en fout du fichier ma yokk le nous on s'en fout du fichier on de la publication des résultats on s'en fout de la Sénat on s'en fout du préfet de Dakar on du gouverneur de Dakar dama dimanche dimanche euh, bandi mooy bàyyam ba